écoute sur tey la euh, àllarba 8 hmm, euh, mars journée internationale de la femme hmm, euh, talaata tey la talaata 8 hmm, mars journée internationale de la femme Euh, vraiment ñu ngi souhaiter une très bonne journée toutes les femmes ah toutes les femmes du monde femmes Afrique yi femmes Sénégal yi femmes yi nga xam ni ñoo ay collègue lañu femmes yi nga xam ni Euh, ñoo bokk ah femmes yëpp daal ñu ngi leen di souhaiter une très bonne journée yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla yokku leen yal na yàlla yokku leen ba ngeen ñu mën a yokk ñun tamit ndax euh, sans femme ñun du ñu dara dara dara hmm. jaa ngeen jëf ab Ablaye Diop jërëjëf Yacine Pouy bon journée ah jërë ngeen jëf internet yeeg euh, auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel ci seen journal des faits divers xalaas ci biir RFM 94 point 0 gis naa femmu RFM yëpp sañ se sol weex ah vraiment yàlla na seen yàgg Ndiaye euh, moom i tamit euh, fonk gi mu fonk femme ak bëgg gi nga xam ne moom la bëgg femme xam nga tey dama ne tey journée la boo xam ne képp ku bëgg jigéen war nga màggal journée bi Ndiaye bëgg jigéen a tax euh, mu jug tey ñëw ne day feete ak ñun journée bi bu ko defee <laughs> Ndiaye ñu ngi lay siyaar bu baax a baax sama waa ji. olof laa wax de. lu wér nga wax sax kay ah. bëgg naa leen lool. waaw ah. hmm. bëgg naa leen lool naw naa leen lool fonk naa leen lool sopp naa leen lool jigéen yi àdduna bi yëpp. rawatina suñu yos muy Sénégal. Mhm. rawatina sama yos. yàlla leen yàlla may jàmm. Ah, ah. yàlla may jàmm ci bépp fànn Ababacar. Mhm. Ah, defal leen xéwal li ma si métti rek mooy am na ñu jaawale 8 mars ak fête de mères. waaw lu ñëw ñu loolu daf ma ñu bari ñu bari ñu bari ñu bari. bu ñu fàtte ne journée mondiale euh, journée internationale droit de la femme. droit de la femme Yacine mii amagul doom ci la. Mm, ñëpp lañ. ji kuy jigéen doom bu ndaw bi nga xam ni mu ngi soog a judd te nekk doom bu. ji kuy jigéen waaye ñi def nañ ko fête des mères. ndeysaan waaye baax na nag ndax yaay it. femme nag ci yaay la commencé. ah yow mm-hmm. tamit waaw waaw femme ci yaay la commencé. waaw moo tax semaine bi yëpp damay teg ay ñi way ay jigéen ak yooyu mais tey journée bi dama ko def spécialement yaay. tey femme yëpp ci yaay lay tey ñi way yaay rek la ñuy animé tey donc femme moom euh, ci yaay la commencé. xëy na sax day benn bés lañ leen jox waaye man jàpp naa ne at mi yëpp ñoo ko moom. walaay 365 jours at mi yëpp ñoo ko moom nuyu naa la Ababacar. maa ngi nuyu passe partout maa ngi nuyu waa Sénégal gi yëpp di leen sant bu baax nag di leen gërëm. Mhm. ci bépp fànn nag. waaw ah. euh, passe. Ababacar sama waa ji maa ngi nuyu de. te tey nooy passé journée bi tey. waaw mais non di jaar fi ngeen jaar rek. Hmm. yow mii bëggoo di leen souhaité ñoom ñëpp. Euh, ah bëggoo jigéen. moo fi bàyyi di bëgg jigéen ma tax may dund di bëgg sama yaay nag bëgg sama soxna bëgg samay doom bëgg samay sœur bëgg ah mi Ndiaye nee na ma pour lan dooma souhaiter une très bonne journée naa chéri Omar Ndiaye yaay bébé Anna yow ak bébé Anna yëpp bonne journée hmm. la passe mais comme comme comme ni ko Ndiaye waxee rek ah comme ni ko Ndiaye waxee ñu xam ni bis la boo xam ne pour àq la ak yelleefu jigéen hmm. surtout hmm. pour euh, ñu mën a xam seen seen seen place ci société bi. Mhm. Euh, ñu mën leen gën a gën leen mën a jox seen gëdd aussi. Mhm. Euh, donc ñu leen di souhaiter ñoom ñëpp une bonne fête di ko souhaiter jigéenu Sénégal yëpp jigéenu àdduna démb la woon Tratender Ndiaye. ndeysaan démb 7 mars moo mhm. nekkoon Tratender. ci la jigéenu waalo yi demee woon. dugg ci kii ba jàmbaar Hmm. yaay lu partenaire yi wax ñun boobu mooy suñu 8 mars ñu. wallaahi wallaahi wallaahi. ñun la 7 mooy suñu 8. <laughs> yow na ma woon Ndiaye yow. ñun la 7 mooy suñu 8. yow na ma woon Ndiaye. Ndiaye ngi nii <laughs> léegi Ndiaye ngeen lu partenaire yi wax. ay ca foo bëgg ñu door rek téléphone mi yoon. xam nga boobu ba léegi dañ leen ko doon wax téléphone Mion. Hmm. jamono ji nag waa Sénégal xam nañu lan mooy Mion. ak hmm. njariñ li ci nekk. Hmm. non seulement téléphone bu baax la téléphone bu garanti la marque téléphone bu wóor la. mais également dafa accessible gaamu yoon dafa yaatu boobu ba léegi maa leen wax yéen Mion mais tey dama leen di wax Mion S20 bi nga xam ne 4G la Android 10. 6.5 mémoire 128 giga RAM 6 euh, batterie 4000 mAh euh, di jël nag ñaari puce. Mhm. double euh, dual sim euh, caméra 16 mégapixels loolu mooy euh, million S 20 bi 85000 lay jar yamuñu ci am na million 11 million 11 nga xamante ne ji 4G la Android 10 mais également batterie bu mën a yàgg 4000 mAh caméra 16 mégapixels. Mhm. empreinte digitale moo koy tëj wala wala wala Face ID 65000 kese lay jar ba tey ci gamme yi am na AeroTap mais également am na Mi Pad écran 10 point 1 pouce dinaa la wax. yi nga xamante ne ji moo ci nekk soixante mille lay jar yomb ba bëgg a dee boole ceeg nag fépp foo xamante ne ji rek jaaykatu téléphone mi ngi fi ci réew mi bu ngeen la ko laajee téléphone mi yoon am na. Mhm. bu ngeen ko jëndee dañ leen koy garantir un an douze mois euh, suñu service après vente mi ngi euh, fële ca Grand Yoff jàkkaarloo ak église Saint-Paul numéro téléphone bi 33 la 827 37 96 33 800. 27 37 96 loolu mooy gaamu téléphone bu am yoon café de luxe Fulbert di partenaire ci xalaas euh, euh, lu neex man kay mën mhm. naa ko firnde te li ci gën a neex mooy lu denc bi di gën di yàgg café gi di gën di neex xam nga na café yoo xam ne boo ko dencee mhm. dafay sàlli mais bii nag lu muy gën di yàgg muy gën di neex loolu laa ci seetlu mais également ngeen am ko ci paquet 1 kilo café de luxe Fulbert am ko ci paquet 500 grammes wala 250 grammes euh, café Fulbert ñu jëlee ko ba Cameroun daw toppatoo ko ci anam yi gën te mucc ayib Euh, képp koo xam da nga ci bëgg moo xam da nga ci bëgg pour sa kër wala nga bëgg ci jënd di jaayaat wala nga bëgg également euh, ñam lii di café Fulbert mën ngaa woote euh, ci 77 512 41 26 76 Aïcha Ndiaye wax Abba Mbaye ma. <laughs> Aïcha Ndiaye Aïcha Ndiaye fi nga nekk 77 512 41 26 76 183 92 98 wala 33 823 09 98. Optic Vision Plus Sénégal la ñuy àndal ñoom it ñi ngi feete 8 mars ci anam bu mucc ayib ndax promotion bu am solo boo xam ne waxuñu sax mars mais mois de mars bi yëpp mhm. loo xamante ne jënd nga ko ci ay lunettes wala accessoire lunettes wala ay cadre lunettes ci boutique Optic Vision Plus Sénégal yi nekk ci réew mi am nga réduction bu tàmbalee ci 20 pour cent ba ci 50 pour Vision Plus Sénégal euh, fii ci Cypress 2 nga dend ak hypermarché exclusive am nañu boutique bu nekk Kër Mbay Fall am nañu loolu nekk fële ca Touba numéro téléphone bi 33 821 54 57 77 479 63 38 ñoom waa Optique Vision Plus Sénégal ñu attaqué xalaas yi Aba. ayca euh, paas ban xalaas bu njëkk la ñuy dem. du ñu dellu fa ñu demoon démb Aba. fu ñu nekkoon démb. ci viol ba. Hmm. waaw. mën nga cee indiwaat tuuti rek. Euh, mooy njaay nekk à jour. xale benn waay. waaw dana ci baax hmm. dafa am benn benn waay. bu ñu diin ne moom moo violé benn xale bu góor. moom nag maanaam police dellusiwu ko. gisuñu plainte. ki nga xam ne moo wax ne dañoo violé doomam. moo ñëw ba ca kër ga. jël si ko. ne ko comme daa porté woon plainte. da ko yóbbu police pour ñu retiré bi. ñu yóbbu ko police ñu téye ko. loolu fa xewoon démb. waaw daa ci topp nag. non dañ ko commencé woon eggul. temps moo ñu xojoon. xojoon comme d'habitude li xewoon démb bari na de. Hmm? waaw mais dañuy dañuy dañuy digluwaat Kaabi Ndiaye. ñëwaat. ma doon mooy sama jarbaat bon sama benn jarbaat lañ fa téye lañ téye ci police ba euh, tribune euh, lañ téye xam nga weeru gàmm gi boobu lañ ko téye ba fa am suñu benn dëkkandoo liñ dëkkal fii daf ko accusé viol ne dafa violé doomam bu góor comprendre nga comme ñun xamuñu woon ci bagage yooyu dara booy bi jotuñoo toog moom waxtaan ak moom jotuñoo xamuñu ci dara xamuñu ndax booy bi def xamuñu ndax deful xëy nañ benn jour ñu ne dafa am kum violé foofu bon après man ànd nag sam benn xarit ma dem ba ci kër ga pour gisanteeg waa ji wax ak moom comprendre nga boobu gis waxuma ak booy bi sax gisantewu ma ak booy parce que booy sant booy bi newu fi ma demee gisantewu ma ak moom deuxième fois ma dem gisantewu ma ak moom wax ma toog après moom woo ma téléphone ma woo téléphone mu wax booy moo violé doom xam nga affaire mais moom rakkam la xam nga du ko def dara du ko tëj bu ko tëjee day mel ni jarbaatam la du ko tëj parce que booy bi sonal na ko fu ne defal na ko lu ne affaire yooyu noonu wax ma yooyu quoi ne ah, wax dëgg yàlla waxu nit ku baax daal nga may wax nii waaye daal bàyyeen man lu ma sañoon ñu ñëw ma ñëw fa toog waxtaan ak yow mu ne waa baax na dama nekk ci liggéey mais après nañ ci wax nga ne ko ok ak moom maa moom ñuy déggante téléphone noonu dama xëy benn jour dem liggéey ñëw ñu ne ma jël si na fii booy bi wax waxa wax a wax defoon benn plainte day dem pour retirer plainte bi il faut mu ànd ak booy bi dem yaay booy bi tamit bàyyi ko mu ànd ak xale bi xam nga mu nax xale bi nax naxal ko ànd ak moom dem yóbbu ko Paris jeudi la ko fa yóbbu vendredi matin ñu defeere xale bi booy bi bi ma njëkkee ñu wax ma ko ma woo ko téléphone jotuma ko ma woo ko jotuma ko ma xëy suba te suba woo ko jotuma ko comprendre après ci lañ yóbbu booy bi yóbbu ko Cap Manuel mu am fa AVR ñu jàllale ko 100 boobu ba ñu fay dem di seeti xale beeg yooyu yaay moom ñu fa doon dem biñ demee ba nga xamante ni kii na ñu ne ma léegi il faut nga waxtaan ak xale bi sa jarbaat la il faut nga toog nga waxtaan ak moom mu wax la lu leer mu wax la dëgg. bu fekkee moo ko def na wax moo ko def bu fekkee defu ko mu wax ñu ñoom il faut xale bi wax dëgg mu wax lu leer dëgg boobu daal lañ soxla ma ne wala maam ok man léegi naa demal def le tout pour jokkoo ak moom bi mu wootee jox ma ko ma toog ak moom kese sama néeg tëj sama buntu néeg ci téléphone bi ma yor sama téléphone ma ne ko léegi booy ma ne ma ne ko léegi dafa am ñu bëgg dimbali ma jaar ko foofu quoi ne ko dafa am ñu bëgg a dimbali mais ñi la bëgg dimbali nee nañ il faut que boo bëggee ñu dimbali la il faut nga wax leen dëgg bu fekkee yaa ko def nga wax yaa ko def bu fekkee defoo ko nga defoo parce que ñoom tamit duñ dugg ci luñ xamul mu ne ma wax dëgg yàlla liñ ma waxal yëpp def ma ko loolu laalaw ma ci tax yàq ma xaw ma kan laa doon sangal xaram foofu pare dem ci duus ba saa yi wàcc may wàcc lay taseeg booy bi xam nga comme moom day bëri xale yeeg yooyu nee na ñuy bëre noonu booy bi booy bi daw ñuy dàqante comprendre nga booy bi yéeg ci kaw après moom mu wàcc dem léegi nag bi mu wàccee après si lañ dégg ñu naan ay moo ko violé moo ko def nangam ak yooyu eh, nee na ma carrément moom yëgul tinul fekkewul ma ne ko booy xamalal la man li ma soxla mooy nga wax ma dëgg wax ma dëgg mu leer mu ne ma wax dëgg yàlla defuma ko ma ne ko léegi lan moo tax ba nga demee police nga wax yaa ko def loo deful nga dem police ne yaa ko def mu ne parce que bi may def ma tiital bi may dem daf ma tiital moom moo ma wax carrément bu ma demee na wax naa wax maa ko def ma ne ko bu la waxee yaa ko def te defoo ko tamit nga dem ne maa mu ne ma parce que instant bi ma tiital dama tiit jékki rek ne xës sama kaw ne ma yaa ko def lii ñoom ñëpp songa songandoom après moom mu ñëw ne ne ma carrément boo demee buñ demee boo waxee ne carrément nga wax ni yaa ko def wax boo demee waxal ni yaa ko def après ma bàyyi la nga dem damay retiré plainte bi mu dem booy bi dem wax police ba biñ ko laajee mu ni moo ko def ñu jël booy bi tiit dégg mhm. kon ci loolu lañ ko jàppee. waaw booy bi nag nee na paa bi moo na ko boo demee waxal ni yaa ko def comme ça mu mën a retirer plainte bi. mu dem wax loolu ñu téye ko. waaw. Mhm. doy na waar de. jaay gaaw gaaw nañ ci defeere de. réew mi. laa ilaaha illallah gis nga démb xam nga dañ fi jàlle mooy comme li fi jàlloon démb. Mhm. benn waaye bu jote woon a jabaram. jabar ji dem porté ko plainte ne dañoo divorcé mat na sept ans. te ñoo bokk benn kër. mu ko jox dépense di ko jox lépp. ba ñu am ci doom ci biir divorce bi am 5 ans. te fekk divorce nañ. waa ci li ndaw si wax amuñu certificat de divorce kenn mosu koo seede kenn mosu koo fekkee. Mhm. xam nga maa ngi lay wax ne la am na ci ci ci alkaati kenn ku dem ba def benn audio di confirmer naan dañoo divorcé woon. Mhm. te amu ci dara lu ko leer. ci même instant bi am ku ma woo xam nga la ma wax daal kaw la benn koo xamante ni dafa taaxlu ko sagoom mhm. moom la ñu sàkku ñu wut coupable waaye si Jakarta lañ ko fekk ne ko yóbbu ne ko nañ ko yóbbu ku ko def. waaw police bi fay ko pour mu yóbbu ko police mu ñëw ba police ñu dugal ko ci biir yaay yaayu xale bu jigéen bi bi mu ñëwee def ni kat kii ñu xamuñu ko xale bu jigéen tamit waxul waa ji ñu boole fa ñetti nit yóbbu nañ ko ba tribunal bàyyiwaat ko. mais léegi loolu yëpp au de quoi loolu loolu yëpp pour la. laa lay wax nag souvent am na yoo xam ne bu taxawee njaay foog gars yi wut coupable. defeere gi moom gaaw na de. amee ah, bu leen fàtte ne gendarmerie police du ñu àtte nag. ñoom ah. dañuy enquête rek daal di jël yóbbu ci yoon voilà bu ñu demee tribunal lay àtte mooy xam ndax kii tax nañ ci moo ko def wala defu ko. mais Ndiaye moom la ñuy wax ne am na yoo xam ne jarul mu egg tribunal mën nañ ko régler fii ci police wala gendarmerie. mais nag mais nag boo demee ci prison yi Ndiaye bari bari na ay innocent de c'est innocent nag mënul taxaw ni innocent la. Mhm. mais bari bari mais. dañ fa fekk naa ne ñi jiite prison yi ñoo feesal prison yi. Hmm? bari nañu fa def ñoo xam ne amuñu fa place bari nañ fa lool amuñu fa place dëgg yàlla am na ñu ñu mënoon a woo daal di waxtaan ak ñoom yedd leen baleen ñu ñibbi. am na ñoo xam ne mën nañ leen bàyyi seen kër ñu toog ñu leen di xool ci lu ñu nekk ak fu ñu jëm ak lu ñuy def mais vraiment xam nga kon nekkuñu ci yoon ñun mënuñu wax ci yoon dara. waaw loolu la de. waaw ma ne ko loolu la de fu ñu jëm. Saly lañ jëmaat. dem dañuy dem kenn wala. Ndiaye Saly Saly. problème suuf la fekkoon na la fi. fekk ko fi déedéet. li am Saly kii gëj naa ñëw de. ba noppi ñëw ah, a ñëw nag ba pare ñëw indaale bokkaalu namme <laughs> ñoo njaay na gën a nag gis nga njaay suufu saliga ndambe njaay am na confiance ci boppam bokkaalu ndambe la indi bokkaal ndambe ñebe am na ku muy waxal di naan ko ana sama bokkaalu ndambe li ba <laughs> ah. dafa manqué feer hmm. lii lu <laughs> ni dem ah, dëgg la de ku boxoon mu maa ngi jégalu maa ngi maa maanuwul maa ngi jégalu euh, nga ni fu jëm dañ si am benn benn cas njaay hmm. benn femme boo xam ay héritier ñoo ko jaay benn terrain hmm. mu jënd terrain bi dem service domanial bu sali ñun ko terrain bi baax na amul benn problème mu dem fay xaalisam ñëw pour muté ñëwaat même service bi mu ñëwoon ñun ko terrain bi daam ko ko moom hmm. benn takk der moo ko moom te fekk mu fa njëkkee jaar dañ ne ko baax dañ ko baax na mu dem ñëwaat ñu ne ko am na borom waaw léegi nag ba ñu ne ko gendarme moo ko moom ndaw si nag service domanial bi ne ko nag léegi bàyyil ma woo gendarme bi su fekkee bëgg na ma jox la numéro pour nga wax ak moom ñu topp ci procédure yooyu noonu ndekete gendarme ba kayit yam yor baaxul ñuy jiiñ ne gendarme bi ak ki nekk service domanial ñoom ñoo def complicité def faux usage de faux parce que ko quarante bi mu indi turu papaay héritier yi moo ci nekk mais daa am faux hmm. quarante bi existé wul ñu nekk ci dossier boobu pareeguñu waasali gépp jóg ku ci nekk ak sa problème ci suuf te ñëpp nag mairie ba lañ joxoñ ak service domanial ba kii waa ji wax ni Ndiaye. waaw yow ñun ci Saly la ñuy wax wala Ukraine wala. Russie Saly gii mais ni nga ko woowee nii tamit ni ëpp nga. Ah, foofu mais lii bombe à retardement la yow Aba. bombe à Saly parce que parce que Aba xam li problème bi. Hmm. Aba ngay taaba taaba jënd sa terrain 96. di taxale pour tabax ko nga ñëw ba 2021 nit ñëw ëpp la doole génne ay kii 2021 moo ko mais mënoo ko woon wutal benn noo bu gën a oyof. ak guerre gi ñu toll retardement laa la wax. moo moo xewoon jaxaay. gis nga ni mu dee fort ngay utiliser ay mots yu ah, ngay utiliser. nañ déglu fan déglu nañ dem Saly ay bombu à retardement à Saly. <laughs> lii wóorul bombardier fu mu dëkk. bon muy Mbour. Ah, jeex na kon ñoom mi miin nañ bomb. nañ déglu waxtaan dégg naa ko waxtaan lii que lañ mi nga xam ne je suis photographe waaw man terrain yi. maa ngi ko yoroon depuis décembre 1996 boobu temps commune de Saly amagul ñetti terrain yi moom nekkul suma soxna parce que ñetti doom la ñu mu nekk ci turam yeewu suba daal fii mois de mai ñu convoqué ma DSCOS ma dem wuyu ji waa ji daal di nekk terrain bi jabarama ko moomoon daal di génne benn kayit kayit boobu nag suma turu soxna nga ci woon commandant Ndiaye bi may gërëm au passage parce que en public lay def affaire yi du du du tëju ci biir bureau daal di xool affaire yi xool suñu kayit ne ko waa ji yow kii ñii ñoo moom mu suñu jaay kenn désaffecté wul terrain yi def nañ fa peine c'est reconnu fay nañu frais yëpp waaw demal ci ki la jaay terrain yi mu delloo la sa xaalis mais ñii ñoo moom da nga jënd sa sa ñetti terrain euh, depuis quatre vingt 96 depuis mm. nga dem ba 2021 nit ñëw taxaw ne moom moo ko te yow jaayuloo mayewuloo leblewuloo. ah loolu moo ñu jaaxal léegi nag man bu ma gisee yooyu j'avais une confiance absolue en la justice de notre pays wóolu ne fii àtte am na fi. waa ji ñëw na fi ak fetal ñëw na fi ax ay nervi ñëw na fi bëgg euh, di di ger ay ay agent yooyu yëpp feeñ. léegi nag man ma dem porte plainte police moo indi fetal bi. teg kayitam yi. tey ji mu teg. Euh, mairie Saly ñu ko jox le 20 deux mille vingt et un man fekk diggante bi yëgaloon nañ ma ne ñi am nañ wàcc ma daal jël huissier parce que lu may def day ànd ak huissier même bu mu fi ñëwee di sonal nit ñi di xooxatal ak ay nerveux jël naa huissier ma jël huissier mu def opposition ci dossier bi waaw waa mairie mu yóbbul leen ko ñu defal ko accusé de réception tamponné dossier bi waaw léegi ñoom le ñu defal ko kayit yooyu c'est des loolu moo garaaw ci dëkk bi léegi mooy que ñi ñoom ah, xoolatuñu procédure fu ñuy jaar dañuy joxe xaalis parce que man bi ñu demee tribunal dafa ñëw di ma woon 4 millions bi ñu demee man suma plainte bi ma defoon ci procureur en septembre 22 septembre 2021 ñu classé plainte bi moom dafa defoon benn miir bu bu ndaw ne day xaaj ñaari parcelles yi mais ñoom nag baax nañu nag parce que am na ñu yéen ma ne bàyyi nañ ma benn parcelle ci ñetti ñi waaw léegi man suma plainte ñu classé ko moom mu ñëw bi mu gisee ma toj mur bi waaw mur bi ma daaneel noonu benn mur la fi defoon cinq briques ci teg nii 4 briques 5 pour xaaj terrain yi ma toj ko mu dem porter plainte jël ay photos plainte boobu moo jàll au niveau du tribunal waaw man loolu laa wax muy wax mu ñëw ci procès bi ñu ma convoqué par voie d'huissier juge bi dafa ne rek c'est reporté au 16 ma ne ko waaw mais monsieur le juge ñaari parti la xanaa man di nga ma déglu mu ne ma non c'est reporté ma ne ko déet léegi su ma soxla nekku fi mu ne su ma soxla na fa war teew parce que kay ji ci la nekk ma ne ko non man defal nañ ma procuration boo xam ne consul du Sénégal à moo ko légalisé donc man mën naa mun kii mu ne ma kon yow léegi bu peine amee ci sa jabar yow yaa koy supporté ma ne ko peine mënul que ñun ñoo nekk ci dëgg te fii du fi bàyyi un centimètre carré juge bi xool ma ne ma affaire suivante acte boobu acte lan la. d' yow te terrain yi bi nga ko jëndee bon ñetti terrain la quoi en fait. après mën nga ma ñëwal ci ci ci numéro ci yi. Mm-hmm. mais du nga ko jënd fay sa ay li nga war fay yëpp. daf droit yëpp. Mm-hmm. après nga bàyyi ko fi dem bitim réew. attribution la par le sous-préfet l' époque qui gérait Saly. ak ah, waaw euh, ñu defal ma ñetti terrain yi. ma laaj leen lan ma lan yan doxin laa war a def. këyit yëpp ngi fi ba léegi géomètre bi frais de bornage yi li ñu waroon fay yëpp fay nañ ko ba ñu ne léegi kon terrain yi yéen a ko moom ci turu soxna si la ñun jaayuñu désaffecté wuñu euh, lebalewuñu mayewuñu waa ji ne ki ko ko jaay nekkatu fi dafa dee diggante bi li gën doy waar dafa ne newoon jabaram moo ko moom waaw léegi moom xamul woon sax fu mu nekk ma ñëw ne ko yéen da ngeen jum ma ñëw woon ko terrain yi boobu ba tey nag mayu ma jàmm waaw léegi bi ñu demee ba ci biir mu yeewu suba ba ma porté plainte commissariat foofu lañ ko classé d'ailleurs léegi demul plainte boobu ne leen dafa yor fetal te bu yoree fetal yéen boo leen ci jugul man tamit war naa mën dem uti suma fetal ñu ne ma déet bu leen egg foofu mu ñëw ñu wax ko artu ko ne ko ah foofu war a fa dugal fetal fetal bi lañ la ko jox pour sa liggéey ah, comme yow da ngay transformer da ngay transformer ay fonds moo tax ñu jox la fetal yi mais boo weesoo liggéey boobu waroo génnee fetal bi boobu nag la génnee kayit di ko laax man ma gis ne kii le 20 juillet lañ ko jox kayit yi donc ñoom li ñuy def mooy du faux usage de faux waaw avec la complicité de l' administration. mais dans tout ça kayit yooyu mu yore nga xamante ni juillet 2021 la ko am fan la ko jëlee. ah maire bi de si na man li ma jot a gis maire bi si na tamponné. xalaas. Hmm? deuxième partie bi leex ñaar nga jàpp ko. waaw ba dunay tukki Sénégal du tàggook ñaar yi. Hmm. ceewal mbalit ak ceewal suuf. bii yii da raw nag. parce que dañu xamul nuñ koy régler xam nañ nuñ koy sookee mais xamuñ nuñ koy régler kër goo dugg am na mbalit. Hmm. mais li ñu wutaleeg yeneen réew yi nga xam ne xam nañu nu ñuy gérer mbalit mooy bañ na ko ba ñaari poubelle sax ñooy nekk ci biti. léegi problème boobu ci kan la ci ñun. bokk nañ ci ñun mm-hmm. bokk nañ ci mm-hmm. tey boo fi tegoon poubelle boo xam ne dañuy jël déchet dur yi teg fee jël plastique yi di ko ber yëpp lañ lay boole boole yëpp wax dëgg la nga tëdd ba guddi buuju maa ne ñëw tuur poubelle jël ci lañ ci soxla donc ba àddunay tukki ba àddunay tukki duñ tàggoo problème mbalit ci réew mi problème mu suufit ba àddunay tukki duñ duñ tàggoo parce que problème bi mooy ña ko war a lijjanti ñoo koy lëjal déggoo lim njëkk a wax mm-hmm. di dem jënd kër dem service domanial ñu ne la kër gi baax na nga jënd ko di lijjanti loo ko tabaxee demaat ñu ne la kër gi benn takk der moo ko moom. Hmm. foofu yëf yi la jë. te fi ñu kaw te fi ñu wutee kër gi entre temps terrain bi màggul dox dem ca. wul hmm, hmm, takk der nekk la nekk. lu ko jox takk der bi takk der bi mu koy jël lu tax neewuñu ko am na keneen ku ko am ki ko am toute façon kër gi moom ñoom ñaar ñàkkul ko ko ci njëkk am terrain bi. lu tax bi takk der bi jënd kër gi newuñu ko am na borom ba waa ji lu tax ba mu njëkkee dem service domanial newuñu ko am na borom. moom kay ñi ko war a lijjanti ñoo koy ba bañ demee service domanial dañoo génnee historique gu kër gi ki ko njëkk moom ba mu jaay ko père papa héritier yi ba kooku jël ko ci diggante papa héritier yi nag ak takk bi fa la foo commencé. Hmm, fa la léegi nag dossier boobu ak bii bokkul mais dossier boobu noonu dafa am lu ñuy wax conflit d'intérêt dinañ ci ñëw. ñu ngi dégg na parce que dañu doon dox benn médiation. te Ndiaye may am na foo xam ni maa ngi koy dégg ci town bi la xaw ma fan la boo fa amee suuf balaa nga fay def benn acte di nga fa teg suufu géej wala nga yóbbu fa ay xeer 3 mois 4 mois. mooy benn kenn ñëwul ne la maa moom fii. nga sali sali gii la Ndiaye ñun fu ñu amee kër. mais ñun ñun Ndiaye ñun ñi nga xam ne amaguñu kër ñun bu dee foo jënd kër fekk fa ay problème kayit te dégg naa am na foo xam ne nga jël sa xaalis roof ko fa dugal war a sa kër da nga fa sotti suuf 6 mois wala 7 mois pour xaar maa moom fii pour nga mën a tabax. plus compliqué état bi day jul suuf jox ko nit ñu ne ko doo fi tabax. Ndiaye plus compliqué SNHLM 2004 ba tey ñaar Sénégal ñoo fa def seen xaalis jotuñu seen kër. li compliqué li ngeen wax ni yëpp ñun kañ la am kër. nañ dem allo kii nañ dem ci c'est compliqué.